maanaam ni nga ko waxee fii dara baaxul fii actuellement nii dafa metti metti boo xam dafa doy waar trop parce que fii mënuñu di fi liggéey chaque jour ndox mi la chaque jour ndox mi bi la actuellement da ngay gis sax xale yoo xamante ne dañuy jaar si ndox mi salte bi jaar si ndox mi nga koy gis nii loolu mooy lu yenul maanaam te dañu ne si émergence la ñu toll. mais fii normalement ndox bu bon bii génn fii mais normalement waa sant parce que ndox mi bu demee ba wow naaj bi naaj bi day wow mais oto yi bu ñu rombee day day poussière day jóg mais poussière bi mën na indi tuberculose mais est-ce que nit ñi ñi ngi rendre compte ndox mi jaar fi ndox bu bon bi jaar fii ak ñi nga xam fii dañu ñoom ay restaurant ay père de famille dëkk fi yor seen njaboot ay dëkkandoo feebar bi mu mën a jur man loolu laay wax feebar bi mu mën a jur ma ne xanaa Sénégal santé bi yëguñu lii ak la environnement bi xanaa gisuñu lii parce que lii mënu fi ne presque quatre euh, deux mille ba léegi nii la mel fii nii la mel mille ba léegi am na bi ay année tëj nañ ko si mois si mois pour defar ko tëj fii mais si si mois bañ ko ibbee un mois mu yàquwaat mais léegi ñi ko doon defar ñooñu ànduñu man actuellement ni man état lay blâmer parce que état moy lepp mo wara a contrôler lépp parce que fi yow yow fi gis nga ndoxu du ndoxu taw de ndoxu foos la même bu taw ñewul sax ndoxu foos bi day génn fi li ñu mën def yëpp def nañ ko nee naa la pression budul pression jinne def nañ ko bind nañ lettre état bi bind nañ lettre ministre bi bind nañ lettre ONAS bind nañ lettre ku nek te ku nek ñew na fi ce qui s'est passé ici ñom ñëpp xam nañ ko. Macky Sall ci élection yi fi la jaar dem fi ministre de l'environnement environnement urbanisme beeg assainissement ñom ñoom ku nek xam ce qui se passe ici. parce que dossier yi yor nañ ko lettres yi nga xam mo moo fi yor nañ ko donc xam nañ ce qui se passe ici jëluñu sen responsabilité pour defar ko moo fi nekk. donc daal lu ñew lu ñu ñew ñu xam ne na bu dalé sen kaw ñu xam ne dal na seen kaw mais dal dem na ni pousse nañ population bañ dem do au mur moy maire bi ak l'état

bu ñu baaree ne oto dootu fi jàlla état bu ñëwee dana am pourquoi ñuy baare tali bi léegi yow looy loolu ñun léegi lan yan moyen la ñu am pour pour pour defar fii ndox moo xam moo fa war a dem géej ONAS taxaw fi war ko liggéey état war si liggéey ñun ñuy ñëw naan dañ siy jëm pexe amuñu si pexe. bien sûr parce que dañ koy jox suñuy taxe te amul benn revenu bu ñu defal loolu rek lañ am. ñun ay privé lañ état dimbali wuñ ci dara ñoo yor suñu alalu bopp di liggéeyal suñu bopp suñu investir ci voie bu mel nii c'est parce que moo am accessibilité pour nit ñi ñëw mën a jënd loolu lañu am mais loolu ñun dañ ñu koy xañ donc ñoom ñu xañ ñu loolu ñu xañ lële xañ ñu leen te ñu jël suñu alal jox leen ko donc loolu lañuy ñuy état bi ak maire bi ba nga xamni dafa jéggi dayo nit ñu leen koy reproché dafa jéggi dayo parce que néna lu fi def na 10 ans ba 15 ans tali bi ni mu mel nii noonu la mësa mel musul am ben changement gouvernement bu fi ñëw fi la ko fekk ablaye Wade fi la ko fekkoon Macky Sall bu ñëw durant 7 ans fi la ko fekk donc amul ben réaction buñ ci def ñu ngi leen ci interpeller bu baaxa baaxa baaxa baax su fekkee na jëluñ seen matuwaay ñun dinañ jël suñu matuwaay pour am nañu def ak ñam